ba tax na ñoom ñu ñu def pétition pour recteur démissionner. effectivement. <laughs> xaar ñu foofu. Biraaw xaar ba tey recteur dafa dañu bëgg recteur démissionner ñoom de. waaw seen pétition ne nañ koy recteur moom foog foog mu abal leen parce que. et le directeur du COUD. et le directeur te ku ah. ci nekk lan ngeen ko lan ngeen koy jiñ recteur wax nga peut-être décision bi. Mhm. Mhm. COUD vas-y. voilà parce que le COUD est impliqué. parce ah que COUD xam nga déci déci euh, comment dirais-je conseil bi ñoom ñëpp ñoo ci siégé ah. dafay am les les directeurs d'école ak les les doyens le le recteur ak équipe ak aussi euh, ki nga xam ne moom mooy le directeur du COUD et mais le directeur du COUD du COUD xam nañ ne moom mooy yor le campus le campus social mm-hmm. et le campus social munu le campus social ak le campus pédagogique dafa lié parce que les ce sont des des des activités yoo xam ne dañuy demandoo en même temps mm-hmm. léegi social voilà fi mm-hmm. dëkkuwaay ak pédagogique voilà xool nañ nag ba xam ne social campus social bi la fa yàqu mënul tere tey ku euh, kii étudiants yi rejoindre le campus social. te donc ñoom li lii seen mbëbët mooy ñu gën a pousse ba ba novembre wala wala euh, comment dirais-je en mille vingt quatre pour pour pour mën a regagner le campus social. Mm. alors que ça c'est impensé. Mm.